asalaamaaleykum mbokki internetu bët set ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag nu ñu koy faral rek di baax di defee saa su nekk nee naa leen Lalla Aïcha ngeen di àndal xale bu rafet ak Daouda jinne caméraman yi fépp fu ndaanaan ni nekk rek ñu daal di leen fay fekk jël leen tey nag ñu ngi fii nga xamante ni ah, moo di Mermoz ñëw nag ci gàmmu cantaaku nii ndax ñoom at bu jot nii lañ koy defee ñu fas yéene ànd ak ah, ñoom rek lépp lu fi xew ñu daal di leen koy indil nag ci ñoom ah, mu ngi nii ñu taxawal di taaliba Serigne mag bi di bisu duñu def rek lu maa ngi laala maa lay fay yàgg waa ba set yaay ree parce que yow doo wax kat dëgg euh, li wax Omaro loo leen ci dugal. Omaro daa loo ko wax. waaw sama xarit la. kon yaa ko dugal ci seen bi. daa am loo ko wax ah moo xaas. lu sa loo si dugal loolu yow may jaww nga dugal ko ba Omaro li ma ko jawal yëpp dëgg la waxaat. <laughs> waaw yaay ñëwaat Omaro. Eh. maa ngi fay sama xarit la moo tax daf ma lakkal. ayca bisu ñu fekkoon la Touba euh, yàggul dara ñu ñëwaat tey Mermoz fekk di la fekk si la fi euh, lan nga ñu mën a wax euh, ci gàmm gi nga xamante ne ci ngeen nekk préparation yi. waaw ni nga ñu fekkee Touba fekkaat ñu Dakar noonu nga ñuy fekkaatee 17 avril ak yeneen ak yeneen waaw. préparation yi comme niñ tàmm di ko defee rek laal la euh, ren li ci particulier mooy peut-être amoon na ay temps ci ginnaaw mën na saral lañ ko doon defee ren ñu defee ko fii ñu fàttaliku suñu gàmm yu njëkkee ak cheikh bi ah fii Dakar donc ñu delluwaat buum ca mboy mboy ga boo seetaat seetaanee waatee situation bi daanaka buum dañ nekk di delloowaat buum ci mboy mboy ga donc euh, à chaque fois loolu ngay seetlu donc duñ def lu dul sant sëriñ bi rek ak tawféex bi waaw Euh, cheikh bi daan na ko def euh, ginnaaw loolu ñu gis ko ci beneen facette ngeen da ngeen jóg pour delloowaat buum ca mboy mboy ga lan moo waral taxawaay boobu. ci ndigal dafa tombé juste mu nekk ndigal par hasard par pur hasard la affaire yi demee nii dañ ciy sant sëriñ bi aussi parce que ñun euh, boo seetloo ay at ci ginnaaw Madina Salaam lañ doon gàmmoo donc ak mesure d' interdiction yi et des trucs comme ça par ñu ñu war a toog dakaar defee ko mu mu ñëw par hasard donc te jàpp naa ni que Dakar namoon nañ mag gàmmu. Cheikh Béthio fii ci Mermoz waaw. lan nga ñu mën a wax ci kanam lan mooy xew gaa yi bàyyi xel parce que lii dafa war a dugg léegi. sant Serigne Saliou rek mooy xew du leneen màggal guddi yonent bi sant Serigne Saliou wax dëgg yàlla ci doon gi ñu doon ay jullit ci guddi yonent bi ñëpp màggal yonent bi dëgg yàlla. est mën nañ ka kaar xii nii gars yi ñoom taw fii de moom wax dëgg yàlla sant rek ni ñu ko sëñ Béthio jàngalee ak cant cant rek wax dëgg yàlla ni mu ko daan defee lañ koy defee duñ ci wàññi dara duñ ci yokk dara. jàng alxuraan jàng xasaayiti sant sëriñ bi. ayca Daouda comme nag ni ñu leen ko waxee rek mbokk internet yi nee nañ leen ñun lépp lu xew ci gàmm gi rek dinañ leen ko indil ah, a tey tamit ñu ngi fi nga xamante ni moo di kër Cheikh Béthio taxaw na kenn ah, ci doomam yi muy sëñ Xaadim Thioune du ñu def rek lu mooy nuyu ko ah, bàyyi ko ñu waxtaan ci màggal gi sëñ Xaadim ñu ngi lay salaamaaleykum ñu ngi jaar bu baax a baax asalaamaaleykum rahmatulah taala barakatuhu ñu ngi jaar mbokk jullit yëpp di wax sëñ Muntaxa Bachir yàlla na fi sax tey ak sëñ Salim Euh, ñu ñëw fekk la fi nga xamante ne moo di wàllum euh, wàllum nag yi nekk ci programme bi xanaa yow lañ cërale loolu. déedéet xam naa dama cee tombé rek waaye lépp sama cër nga ca waaw damaa ñëw rek doon xool gaay yi xool barab bi ak li ñuy defaree yëpp nekk ci organisation bi rek waaw. Euh, màggal gi seen prop naka ngeen ko programmé organisation bi lan la ak naka la nar a tëddee. waaw gàmmu gi moom. waaw gàmmu gi moom ni nga ko organisé mooy ni nga daan organisé rek suñu waajuru tedd bi ni mu ko daan defee rek. ndax moom sëñ Saliou ko joxoon ndigal muy gàmmu fi Ndakaaru ba gàmm gi njëkk a def daaray got xabaan ak lagan dongo tër bi dàq jàng ñoom la yëpp ci ay ay mbaar ay L200 jël sugar ak warga di kun ñaan indi ko fii ci pàkk bi nga dégg fi ñu jàngee ñu ñëw fi daan fi gàmm sëñ Saliou moo ko joxoon ndigal ngir muy gàmmu fi waaw ñu gis ne gannaaw gi euh, loolu daan na gàmmoo fi nga xamante ni moo di Medinatu Salaam euh, tamit ngeen indiwaat ko fii lan moo waral loolu. waaw loolu day moom ndigal la rek ndigal lañ am fii moom dañoo jox ndigal ñëw fii waaw jox ndigal ñëw fii nag mooy sëñ Seex mu sëñ Saaliw waaw moo ñu jox ndigal ñëw gàmmoo fii am na nag euh, yu ay xew-xew yi fa amoon ba préfet joxe joxe ordre ni bu fa kenn bu fa kenn gàmmoo ndax ay mesures de sécurité waaw wolof daa wax kuy tëru kuy teggee ci gën gaaw moo tax waral ñu ñëw fii gàmmoo fii nga xamante ne fii la suñu waajur daan gàmmoo mu saf ñu lool nag neex ñu waaw ñëw giñ gàmmoo fii amuñu ci benn regret di sant autorité yëpp ci disposition boobu ñu jël ci loolu ñu jël set xarañ googu ñu xarañ ba ba gàmmuñu fa mu mel ni lu yàqu te yàquwut ñu ñëw gàmmoo fii ci pàkk bii nga xamante ne suñu waajur bu tedd fii la na gàmmoo waaw. kon coow ngeen di bañ. déedéet coow képp kuy ab julit wala ngay citoyen ngay doomu aadama war ngay daw coow coow moom koy ñaan coow da nga xamul coow coow baaxul ci dara ñun duñ ay nitu coow ñun taalibe Serigne Touba lañ taalibe Serigne Saliou lañ duñ ay ragal nag ragal moom dunu ko ndax kuñ jur du ragal duñ tit duñ raf waaye nag ay mbirit lañu ay julit lañu dañuy tënku ci ci lislaam wax ak jàmm ak salaam lislaam jàmm la wane ak salaam waaw ñun loolu ci loolu lañ tënku rek waaye du ragal ragalu du ragal mu du raaf. kon daal mun nañu xaar bernde yi ndax ku xam Cheikh Béthio xam ne da daan ni mu daan berndelee màggal la daan berndelee gàmm kon mun nañ xaar bernde yi. waaw bernde yaa ngi fi lépp mat na ko nag yaa ngi fi gëlëm yaa ngi fi lépp ngi fi fruits yeeg lépp jalaañoo waaw la ko suñu waajur wu tedd wa daan defee moom xanaa keñ dañ ciy barkeelu rek waaye moom kenn du moom nag sëñ Béthio kenn du moom ñu ngi koy sant te di ko ñaanal fa mu ne suñu borom yokk fa ay xéwalam te mu ngi koy yokk. ñi daal nekk nañ ci ndigalam li fi bàyyi woon daal muy alxuraan xasida sikkar ak joxe ñam ci loolu lañ ne tënkul ci loolu lañ tënku tënku ci leneen nag ci jaamu yàlla jàngum xasida guddik tay gi moom danañ fi wàcce ay kaamil yu bari jàngum xasida gi ñu ngi koy wàcc kuréel yaa ngi wàcc berne yaa ngi wàcc misu yeeg lépp gi wàcc wasalit geeg café Touba gi lépp gi wàcc ndax guddi gee ko laaj jaajëf. ayca Moustapha ba tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moo di Mermoz ñëw nag tey ah, dajee feek surtout sëriñ bi nga xamante ni moo ne foofee ca Amérique Amérique ñooñu ñëpp bëgg nañ faa dem rawatina man mii du ci def rek lu may ba comme nuyoo sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi delloo siyaar soxna si ñu ngi siyaar bu wér. yow sëtu sëriñ bi nga. waaw sët laa sëriñ bi waaw doon taalibe nekk tubaa New York waaw nekk Amérique waaw man Cheikhouna Ndiaye bokk foofee ca bokk taalibe yi waaw di siyaar suñu jëriñ moom mooy sunu jëwriñ ñu waa États-Unis yëpp waaye man jëwriñ universel Fat Diène moom mooy sama jëwriñ Touba New York waaw ñoo àndee foofu liggéey bi andee ko euh, Serigne saalu Ndigal Thioune nu boor ci ginnaawam fa séenee wéy la liggéeyal Serigne Béthio waaw ñëwoon màggal si. Ah, naka ngeen waajalee gàmm gi yéen waa yéen waa Amérique. waaw waa Amérique comme fii Sénégal rek waa Amérique comme Sénégal ni ñu koy waajalee rek togg nañ ay ñam foofa gaa yaa ngay bernde togg nañu ay gàtt ak ay ñamu suukar comme ni ko Serigne Béthio déglee waaw ñamu sukar woo woo mbokk jullit yëpp ñu fas yéene ànd ak ñun gàmm gi foofee foofee laa ko daan ànd ñoom waaye ren sëriñ bi daa dogal ma màggal si ñëw fekkee gàmm gi ak xel koom waaw ànd ak ko sëñ Saalu ndigal cuun wax dëgg yàlla lépp a ngi baax ñu ngi sant sëriñ bu baax a baax moom foofee ni may waxee yéen gaa ñi jokkoo naag ñoom démb ñoom ñu ngay waajal ay gàtt ak yooyu ni ñu koy defee fi noonu lañ koy defee fële États-Unis waaw muy New York ak yeneen état yëpp ni ñu koy defee rek noonu lañ koy àndee waaw Euh, tey euh, mu mel ni euh, sëriñ bi bari na ay taalibe biir réew biti réew waaye li nga xamante ni moom la ñu génn muy diggante waa kër Soxna Aida ak sëñ Saliou ci naka ngeen ko dundee foof waaw ñun foofu foofu de wax dëgg yàlla moom jàmm lañ seq ndax ñoom suñuy mbokk taalibe lañ ay taalibe sëriñ Béthio lañ wax dëgg yàlla ñun dañoo yéene ñun ñëpp àndandoo liggéeyal sëriñ Béthio ndax loolee mooy li ñu sëriñ Béthio bàyyi loolu sëriñ Béthio ci loolu la ñu nàmbatal ñu doon booloo doon benn moo tax ñun amuñu xaaj ak seen ñun ay cantaakoo lañ taalibe lañu li ñuy ñaan daal mooy ñun ñëpp àndandoo te loolu xam naa ne dina am ndax sëriñ bi euh, sëriñ Béthio li ko sëriñ Sall wax rek doo yàqu doo yàqula te kenn mënu laa yàqal xam nañu sëriñ Béthio lépp may dox lépp may baax li am nii rek li ay dogal la waaye ñun ci ak taalibe lañ tënku ci ak taalibe la ñuy sax ci ak taalibe li ñu sëriñ Béthio bàyyi daal ci loolu lañu sax waaye ñun xooluñu ay diw nangam ak nangam ñun lépp dañoo yéene ñëpp ñu àndandoo ak sëriñ Sall ndigal ndax mooy xalifab sëriñ Béthio loolu la sëriñ Sall dogal loolu suñu borom dogal mooy suñu borom defar lépp ba nu àndandoo liggéeyal Serigne Béthio ndax loolu ñu loolu la ñu xam noonu lañ doon àndee ñun Amérique waaw barki Serigne Touba ñun mbokk taalibe ñëpp benn lañ waaw moom daal di di ñaan rek yàlla na Serigne bi def yàlla suñu borom def ba lépp doon benn ñu ànd ak Serigne Saliou ndigal àndandoo di liggéey topp ci ginnaaw sëñ Cheikh Saliou ndax moom mooy sunu Serigne moom mooy Serigne Saliou waaw yow kañ nga war a dellu ni yow xanaa bëggoo ku lay jàppale foofu ci liggéey bi. waaw waaw foofu kay ñu ngi koy bëgg nañ ko ndax foofu liggéey bi tam ni ñu koy defee fii noonu lañ koy defee fële. man damaa bëgg a waaw dañuy jàng xasaayit nekk ci màggal gi nekk ci gàmmu gi ak 17 avril ni ñu koy defee fii noonu lañ koy defee fële gaañaa nga fa ñu am pësteef ñu bëgg Serigne Saliou ñu bëgg Sëñ Béthio ñoom ñoo fa nekk wax dëgg yàlla. ñu ngi lay jaajëf ñu ngi ñu ngi siyaar bu baax soxna di santaat bu wér a wér ay ca mbokk internet yi gis ngeen ñu ngi woon foofu nga xamante ni moo di Mermoz waaye tamit ba tey ñu ñëw fi nga xamante ni moo di Liberté 6 euh, ñëw nag ci waañu cantaakun yi ci waañu Serigne Saliou Thioune euh, fi la ñu ñëw tey xool ay taalibeem naka la ñu berndee euh, naka la ñuy waajee waajalee bernde yi fi nga xamante ni moo di waañ bi léegi nag du ñu def rek lu mooy bàyyi leen nag Ibrahima Diagne mu nuyoo Ibrahima Ibrahima ngi nii moom tamit macha allah nekk nekk woykatu Serigne bi nekk taggukatu Serigne Saliou Sénégal yëpp ràññee ko ci baasu Serigne Béthio bi donte ke ne nag gëj nañ ko gis Ibrahima ñu ngi lay nuyu waaw bu baax waa bët waaw ah, ti lool nag si bis bi ah waaw si bis bu tedd bu kawe bi nga xamante ni sëñ Saliou moo ni guddi gàmmu ëpp na yemale ko guddi gu ko jiitu woon wala guddi gu sa topp loolu ëpp naa def kon bu yàlla dogalee wax dëgg yàlla ngeen may interviewé ñëw si waañu Cheikh Béthio wi mooy waañu Serigne Saliou ndigal gàmmu gi Madina Salaam la ko woote woon ay dogal am waaye bu ngeen gisee diggante dem ak tey daanaka si heure yi ak tey nii mbooloo mi ñëwee waañ yi nii mu tase nag yi dajaloo bare te ma ngay jëndiwaat Mermoz boo fa demee lépp di suus baas ba fa am mas am bañ dalee gàmmoog tey loolu day wane ni Serigne saaliw ma ngi fi jogu fi te mooy borom gàmm gi. gàmm nag sëñ Tuubaa li mu si wax si jës bul xulóob ku ko fekkee war ngaa sant ndokk nag bañ ñëwee ànd koog sëriñ Saliou ndigal ci woon nee naa ko da am chance ndax ndigal mooy murit ñu lay dàkkante la ndigal fu ñu nee ndigal ñëpp naan sëñ Saliou ndigal Tijaan xaadar laayeen chrétien ku jóg ni sëñ Saliou ndigal tawfeex la ndokk ak ñun ba ñu ko àndeek moom loolu mooy tawfeex la guddi gàmm nag euh, sëñ Béthio wax na ko yàlla moo jëkk a màggal rasulullah yi tagg ko waaw inna laaha malaayikatahu yusalluuna ala nabi doy na sëkk yàlla moo julli si rasulullah yi digal malaayka yi ñu def ko loolu dagalal na lépp lu ñuy def si rasulullah yi ngir màggal ko bu amee bis nag boo xamante ni ku ne am na bis waaye bis bi nga xamante ni dañoo jomboon yonent ti ka jiite woon ñëpp doon annoncé ñëwam muy Seydina Moussa Seydina Ibrahima yonent yëpp Seydina Noohin Seydina Insa ñëpp annoncé rasulullah yi ñëwam kookee wàccam si kaw suuf dañ ko war a màggal bu amoon lu raw màggal ñun dañ ko war a màggal loolee dañ ko war a def moo tax sëñ Béthio amaat sa loolee ndigalu màggal ko jëlee ko Serigne Saliou kon ñun dañoo am digal ñaari yoon mooy def ko ngir julit dafa war ku ne kuy mbindeef nag ndax yonent bi sëñ Tuubaa nee na man zanna annaka tuhaakil bashara wal jinna wal malaka lan yu bashara képp ku foog njort benn saani yow rasulullah yem nga ak jinne wala malaayka wala nit doo bëgg àdduna doo bëgg alaxira kooku du nit kon bis boobee bu yàlla dogalee ñiy jullit di ko jëf ba pare am si ndigalu Serigne Saliou loolee ñaari feex la sëñ Béthio nag lépp ak cant la doomam ji taawam bi yàlla na fi yàgg te wax dëgg yàlla fa baayam daan jaar la jaar yàggagul waaye yàlla na fi yàgg te ñu naan doomu ñay kenn du ko yàggal ñaanal rëy dañu koy ñaanal gudd fan yàlla na fi yàgg ànd ko rakkam yi ak taalibe yëpp ndax lii xam nga ne bu doon lu ñu waajal ak naka sëñ bi daan defee wayu ñu ko waaye ku xool jambal jambal ji xam ni lañ ndakaaru dañ ko namoon waaw donc dañ koy ñaanal mu yàgg fi te wér yéen seen lii barkeel ba lu ñuy wane si àdd bi muy yoonu murit ak l'islam ku ko bëgg xam ku ne jaar si seen seen chaîne bi waaw yàlla lan tuxu tuxuwaayu waañ bi ngeen ñëw fi bon xam nga fee boo fa demee gis ni y a xëy na bu doon ndax démb daanaka la sëñ bi joxe ndigalu nañ ko fekk fii te nga day am laaj ay préalable te foofa daa xat léegi gis nga léegi jardin yi ñi fa def fañ daan togg yëpp dañ ko def ay jardin public waaye c'est sûr que bu fekkoon am nañ dële eh, foofu sëñ Béthio ñëpp ko bëgg daa yàgg jëflante teraanga waa Mermoz ak waa Wakam ak ñëpp espace boo laaj daañ la may waaye dële bi xat ba tax ba amul woon espace parce que xam nga lii xajul si ay réel donc fii rek la ñu gisoon ne moo doon terrain donc gars yi nga xam ne ñooy organiser ak Ibrahima Mbuub ak ñeneen gis fii moo gën a yaatu loolu moo ko waral donc waaye di nga gis ni fii daanaka moog Mermoz benn la da ngay dox ñëw gàmmu gaa ngi daanaka à 100 mètres nga ñëw fii donc di yàlle ci nii suuf si baas bay riir fee ak xasida yi gaa yaa ngay wàcc kaamil ñu ngay jàng xasaayit fii boo ñëwee it loolu la ñu koy def waaw. léegi laata boobu dañ lay bàyyi rek ak mbokk internetu bët set nga bégal leen rek ci waxtu gàtt comme na nga ko daan defee. man zanna annaka tuhaakil bashara wal jinna wal malaka lan yubashara man ku jumba jàppe la nit te dab na la li tax ñu mooy leeru ahmada muqaddimaat indi ko jës bu leeralaat ko Serigne Touba yaa feeñal mbootu Ahmada dégloti leen ma yonen ndeke leer gi tax ba lu ne am mooy borom jamono maqaamaam ka gën an xayri rabbi leere ko mooy bon borom jamono Serigne Touba ne li noori sajjadaat kullu ku ñu sàkkoon borom jamono nee nan nuuri bëru Musa yan falequ ajit nuuru Isa borom jamono Sëriñ Tuubaa li noori sajjadaat kullu ku ñu borom jamono donc loolu introduction mu la am na it beneen boo xamante ni jëzbul xulub ñu ngi lay jaajëfal ñu dugg ci biir rek jël waaj gu jël gaañ yi bu ko defee nag sëñ baa fa waaw waaw ayca Daouda ah, waaw gàmmu sëriñ bi la Daouda danga may daal di topp rek ci biir ñu jël li nga xamante ne ah, mooy préparation bi mooy waajal gis nga macha allah ah, ndawal yi bari na gàtt yi bari na lépp bari na Daouda topp ma ñu jël lépp. wàccu bur yàlla daaru dun yaa dëppoog ñëw bambala di way ni leen cun Cheikh Saliou kenn la. ñi xamagul rasulullahi leer gay ginde te du faatu moo di yërmande cun Cheikh Saliou kenn la yaqa'u qalbihi wa uxrijat fihi mudqatan inda qaslihi sawdaaw cun Cheikh Saliou kenn la borom lagan borom jurul borom jorom jàpp borom lagan borom jurul Mbàkke borom jàpp borom gis bul xulub du ñaar cun cheikh saaliw kenn la alhamdulil aqil mubin man kaw noo liyey yebin alal kitaabil mustabin wàccu bur yàlla daaru dun yaa dëppoog ñëwug sëriñ bambala di way ni leen saaliw kenn la ñi xamagul rasulullahi leer gay ginde te du faatu moo di yërmande cun Cheikh Saliou kenn la yaqa'u qalbihi wa uxrijat fihi mudqatan inda qaslihi sawdaaw cun Cheikh Saliou kenn la borom lagan borom jurul borom jorom jàpp borom lagan borom jurul Mbàkke borom jàpp borom jësbul xulub du ñaar jun Cheikh Saliou kenn la alhamdulil aqil mubin man kaw li yey alal kitaabil mustabin wàccu bur yàlla daaru dun yaa dëppoog ñëwug sëriñ bambala di way ni leen jun Cheikh ñi xamagul rasulullahi leer gay ginde te du faatu moo di yërmande jun Cheikh Saliou kenn la شقاء قلبه وأخرجت فيه